<laughs> ndax doylu ma dara waaye kontaan naa trop que ngeen braquer les projecteurs sur mois de cette manière te nekkul werante nekkul werante c'est c'est ça qui fait la spécificité de votre émission da ngeen di permettre nit ki mën a wax loo xamante ne amul possibilité di ko wax fu nekk ah damay kontaan trop di leen ñaanal yàlla ndax bébé ngeen yor buy dooram di juddu. Mhm. yàlla leen yàlla dëgëral bu baax a baax. di tàggu sénégalais yëpp di wax jeunes yi bu ñu dem di def immigration clandestine. Mhm. la migration clandestine laal nañu lool ñun ñi dëkk ndar je fais partie des presque des premières personnes si njëkk wax. Mhm. mais wax jeunes yi tey leen ñoo di bu daggul dikk li ngeen def bu ko président Macky Sall defoon kon du nekk président de la république lii ñuy def nii bés bu ko Ablaye de la république dégg wiiw yóbbu su ma ko defoon dem France toog mbaa ma jaaree ci gaal gi kon tey jii du ma mën a dégg wiiw ci sama biir ay morom kon nañu gëm ñu téye metti na lool waaye foofu la gën a méttee ndax France boo ñàkkee xaalis tey suba mën nga fanaan ci mbedd bi nekk SDF alors ko Sénégal tey boo ñàkkee boo ñëwee sama kër ñemewu ma laa bàyyi nga génn boo ñëwee sa kër yow ñemewoo ko bàyyi mu génn mu bindee Facebook ñëpp dinañ taxaw bindal ko kon damay wax nañu téye bu baax di lancer un appel au président président Macky Sall jeunes yi am nañ ci yow yaakaar lool président Macky Sall jigéen ñi am nañ ci yow yaakaar président Macky Sall loo jàppoon te jàpp nga ndax l'équité waxuma l'égalité la politique de l'équité yow yaa joxe exemple boobu dans le monde entier dama lay wax dolli waatal ndax sénégalais am nañ ci yow yaakaar lool ndax jox nañ la score bu ñu joxul kenn ci àdduna kon jàppaatal bu baax nga xoolaat jigéen ñi nga geesu jigéen ñi nga geesuwaat jeunes yi bu baax te nga xam ne ànd nañu ak yow. ah maa ngi tàggu Sénégal yëpp di tàggu àdduna bi yëpp di def clin d'œil à toutes les femmes de la diaspora comme ni ma la koy waxee ay jigéen yu mën góor yuy takk seen digg di liggéey di foon ñëpp ñoo xamante ne samay mbokk lañu di ko teg sama loxo grande sœur Ami Diop bi nekk Nouakchott mhm. di wax kala biwo mbimee mbimaa mi oh, min men di leñul mbede salmin mon mbede juuru mon mbede wi mon asalaamaaleykum wa